door Xaasim laay merci DJ keneen ki may bëgg a dugal kooku mooy le champion d'Afrique, le champion de la CDAO. Demba Ndongo mani la combat bu doy waar la te le chiffre neuf daf ci am solo kii dafa bëre huit mu bëgg a bëre neuvième combat kii bëre dix am neuf victoire mu ni ma la dix dama koy le neuf dama koy dixième kii ni ko man le neuf la ñuy bëre mu nekk sama neuvième combat neuvième victoire sa waay ni ko dangaa ngaa juum yoon wi du foofu man le neuf laay am sama dixième victoire ci sa kaw mu nekk combat bu doy ñaari ndaanaan ñaari xale yu mën a bëre kenn du ci daw gannaaw kenn du ci euh, mbër bu nga xam ne dañ naan kii mooy kan ndax seen i preuve wane nañ ko ba pare Sélé ne kenn dootu ko présenté moo toj CEDEAO moo toj Niger moo toj Ndakaaru moo yëkkati drapo Sénégal dem fekk ko dëkkam mu ni ma bu gerte gi ñoree dugub ji ñor ba ñu dóor ma sama mbaxalu Saalum góor gu ma jàkkaar lool bu ma nee runkum nga xam ne ni ma toll doole jëpp na loolu laa ilaaha illallah waa léegi ginnaaw nag yow yaa koy dalal parce que xam naa ni balaa muy jóge Saalum xanaa di nga jóge kam maa ngee xoox ba ñëw kam maa ngee xoox Somone Mbour ak li ko wër yëpp yow yaay seen champion yow la ñu yaakaar mais sawaay nee na day jër ñëw fii defal la bagage delluwaat Saalum waaw asalaamaaleykum Bébé Saloum sax li ma koy njëkk wax mooy moom tojul fenn kenn xamu ko Sélé Mané dafa toj ba am woy pirkendiro nderi ngel na e sele yalgol ne gima ɗum mbi jogoyne ha daw na waaw mais nag dama koy daan ba pare doo ko tekki lan la ah. waaw incha allahu rabbi li ma koy wax nag mooy euh, na xam ne am na combat xaw ma ndax moom mu ngi soog am combat xaw ma ndax xam na ko xaw ma ko mais mu ngi soog am combat kii huit combat yi mu am sax man dafa leeru si man quoi parce que man gis ma fu mu toj sama combat dafa taxawaalu fii depuis daaw ba léegi ba ma daanee général Diouf gars yi ñu ngi wër combat bi ku ne ku ñu wax ñu ne sele ñu ne ay mukk si àdduna moom na xaw ma nu mu def ba jël combat bi. eh combat bi li tax mu jël ko da ngaa daan général Diouf mu daan général Diouf rek nag après làmb ji boole leen du noonu. waaw mën naa sax loolu si la bokk parce que euh, sama avance yàgg nay taxawaalu moom nag li ko jëloo laa wax moom ndax xam na lan la. Ah. waaw loolu laay laaj ndax xam na lu tax mu jël combat bi. Eh, bébé nee na est yow da ngaa jël combat bi nii rek taxamuloo xamuloo ki ngay mu doon moom mi di Sélémène di Boy Sène. asalaamaaleykum waa Mbour asalaamaaleykum waa Tefes gi nuyu sama mbokk Saalum Saalum yi nekk fii yëpp nuyu waa Mbour di nuyu waa campement Ngexo borom pousse-pousse yi ñi nekk si marché bi yëpp maa ngi lay ziar di nuyu ñu ma àndal sama nijaay alaay jaw Diop Joola Modou di nuyu sama nijaay alaay Seex mu oto ma ñëw fii marché kii kan la daan kan la daan laa bëgg a xam man huit combat laa am huit victoire. limal ma njëkk a daan yow. soo bëggee ma lim benn mu lim benn ma lim benn nga lim benn billahi moom may njëkk a jeexal cinq combat la bëri arène na lim ma lim ñu commencé benn benn. mais yow yow palmarès bi dix combats neuf victoire benn défaite nga ni ma cinq rek la bëre. su limee ma lim. moomay njëkk a jeexal du ma jeexal maa la wax lii àdduna yëpp a ngi ñu wër di ma seetaan bëriwul lool man lu ma bëre laa wax dama koy wax lu mu bëre bu ñëw di lim ñu daanul na lim ma lim na lim benn ma lim benn cur sukun ku ndax defe naa ne selemele ah. euh, deux combats la mujjee daan la mujjee daan fii nii maa daan Jordan yàggul dara mhm. ñëpp xam nañ ko waa Mbour yëpp fii laa ko daanee. ay ca école foofu moo daan Jordan. maa daan xeeru ngor. ma daan général Diouf. ma daan Cheikh Gàddaay. ma euh, daan Buubu Joom. ma daan Buur man sama combat yi sax ñi ma daan ñëpp ma leen nekk fii di wax mais na taxaw na taxaw rek parce que moom mën naa am da ko répété waaw taxawal rek ma wax taxawal taxawal fii taxawal rek ma wax la jarul ngay nekk fii di wax Buubu Joom laa mujjee daan. daan buubu joom taxawal bu la bu la neexee Père Max ma toog léegi limal ko yëpp parce que seetlu ma ne ñu muy daan yëpp dafa bari yaa ngi dégg man su ma xasee ba daan nit jàppatuma sa tur. boo yëgaleel. waaw dafa am lu xew. Ah. nee na daan ay franc rouge bon ay la daan Boy Balde maa daan Boy Balde. Mm-hmm. Boy Balde maa daan Xeeru Ngor daan Thiaw Trois maa daan. général bu muur maa ko daan Malick non dama koy rusloo rek baal ma yem foofu <laughs> moom na wax na wax ñi mu daan ñëpp mu leer ma ma wax ñi ma daan ñëpp na wax witti witti na ko wax mu leer bo nee na nga commencé et gars yi yéenay limal ma maa daan Cheikh Gaddaay maa daan Xeeru Ngor Babacar Taw bu Yoof bu naa ma rasa numéro 2 Cheikh Gàddaay ma daan général bu Mbour général bu Mbour buuru Saloum maa ko daan Kaolack maa daan Thiaw 3 waaw kon mu ngoog lim na 8 Boy Baldé maa ko daan kon 8 la bu ko neexee muy jël ay nit rek naan maa daan diw maa daan diw Kër Baay Ngóor laa njëkk a bëreel laa njëkk a bëreel combat Kër Baay Ngóor yaa ngi dégg Kër Baay Ngor laa njëkk a bëreel combat arène. waaw léegi daal xam nga lan mooy coow li. bu jógee si Kër Baay Ngor daam raam daan man ñi ma daan su déggoon wax ñëpp maa ko raam daan ngëriñ ji la dëkk ñëpp xam nañ ko Mbay Caane daje nañ jorox ma daan ko yaa ngi dégg Mbay Caane. li ma fi lim yëpp buñ ko yow déggoon lax yow. waaw affaire bi daal léegi jarul lim li ci des xam ngeen lan la yéen ñaar yéenay daje le neuf kan mooy boole moroomam ci palmarèsam loolooy coow li. man la maa koy boole maa ñëw grand combat si kàttanu si yàlla maa ngi ñaan yàlla may ma ndam si kawam bu set huit si kàttanu yàlla maa ngi nuyu nag waa Mbour yëpp Petite bi ñëpp ku ma limu damaa juum man sama kan maa ngi caanu ma xamal la leen ah. barke Seydina Mohamed du ma contrat sax di waat kii billaahi mënu maa tere nelaw mais xool nga ko bu gis nga sele bu xool nga sele mais man dama ko gis waa ji dafa mel ni dafa changé ah. yow laa lay laaj ba xam gis nga ma gis ko ak état bu ma am ak état bu ma am état xale laa yor barki Seydina kii maa ko bëgg. toujours bu yàlla duma ma arrière fu mu taxaw ma fekk fa. normal gis nga kii wax jee bëri première suñu première jàkkaarloo laa xam ne waxkat la. te Sélé ñëpp xam nañ ne lu mu gën a man mooy jëf man jëf laa xam amul champion bi ma daanul fii man jekk nekkuma fii di présenter sama bopp moo moo war a ñëw di présenter boppam man waruma ñëw fii di présenter sama bopp li ma koy wax mooy le neuf incha allah yàggatul cooli cooli jarul muy bari le neuf buñ jàkkaarloowee ba ma simmeeku ba jàkkaarloom dina xam dina ne kii sele la wala dañ koo montage. ah boobaa day sekk boobaa fii la ëppee sekk saalum la ëppee per. xanaa dafa dof cere soo ko siiwee day sekk cere laa ko ni toog billahi wallahi taala cey loolu Père Malick xanaa léegi daa daa fàtte mbaxalu Saalum moom bii moom léegi mu ngi si cere ji cere séeréer a ko moom nag ah, waaw loolu dëgg la cere séeréer a ko moom de fils Père ñun dañuy bay yow dem nga suñu dëkk dugub bi nag yaa ngi si taatu kër gi da ngay ratt ñëw jël sa cere lekk ñun xam nañ li ñu wax loolu daal duñ si nekk sax di wax ñun dañuy dañuy woote rek di woo suñu mbokk yi yëpp waa Saloum yëpp ñun maa ngi la ñu woo di woo waa Petit Côte bu nekk Mbour yéen ñu nekk Tefes gi Saloum Saloum yu nekk fii yëpp maa ngi la ñu woo ah ak téeri ñoom dam ma dam maa ngi lay woo ñoom seen yi gars yi nekk ci tefes gi yëpp maa ngi lay woo la neuf ngeen ñëw ma daan selemele si kàttanu si yàlla jëlum set wecc di woo nag suñu waa dëkk waa Kër Madiabel waa Nioro di woo ñëpp di kot bi di woo Bati Gueye di woo El Hadj Diaw Diop El Maal oto bi maa ngi woo di woo waa parcelle 1 ba 26 kenn ñoom Cheikh naa sama fan su kër bi. ñëpp nañ ñoo jàppale ma mbiru Ibrahima Gueye sama nijaay Cheikh waxoon naa la ko kaar yi jugee Saloum dimbale ma si. alaay jaw Diop yow tamit alaay Seex kaar yi Saalum monsieur le maire maa ngi woo ñëpp kulli kulli mu na ngaa jum Casamance Père Birame Ndiaye maa koy woo jamo sele mele mo dantu ci kàttu suñu borom ay ca sele wooteel moom fàtte na sax dëkkam bu mu dëkk kër ma ndongo nga dëkk doo ko wax nag xanaa tiit li may wax mooy maa ngi woo waa Petite Côte bi yëpp surtout Mbour gii di woo waa tefes gii fi ñu nekk fii nii support bi dama fee bëri ay supporters fii nii ma leen di woo ci bés ba ñoom ñëpp ñu ñëw ñu ñëw seetaan si Sele Mele dama laa bàyyi nga wax bàyyil ma ma wax dama laa bàyyi nga waaw may woo waa campement ngi ko wax yëpp monsieur le maire vingt car la maye vingt car ma leen koy wax vingt car la maye nga ko wax billet yëpp lañ koy dagg incha allahu rabbi quatre heures dina fekk stade bi fees dell ñu ñëw nag indil ko cerek naxal bu tàng jër moom mbaxal saalum lay indi mais cerek naxal bu tàng jër laa ko indi dina la duma dinaa la daan yow incha allahu rabbi